سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الطرخاء رقية الأنبياء يا سماء ما طاولت السماء لم يساوك في ولاك وقدر لسنا منك دونه وسنا mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokki taalibe yi di nuyu ñëpp di leen ziyaara bu baax a baax di leen bëggee bu ngeen déggee loolu ngeen yëg ni islaam amatina ndam diine ji amatina ndam waa kër tarixa cheikh abdou xaadir jeylaani amatina ndam tabaarakallaahu bu ngeen ñu gisee ngeen yëg ni lenn rek ñu tax a jug du lenn lu dul alxaaji sëriñ Koné mi ci kër mbay fall tabaarakallaahu moom mi nga xam ni mooy borom le 25 janvier inchaa allahu taala di delloo njukkal sayduna muhammad fële ci kër mbay fall are jumaa ji boo jéggee raay bi incha allah di nga jàkkaarloog baas bi may ñaan képp koo xam ni yaa ngi bëggee sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan la 25 bu la ko kenn nettali Kër Mbaye Fall lay doon incha allahu taala bu ko defee may ñaan taalibe cheikh yi tiijaan yi murit yi yi laayeen ñase ni ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi ñaan ku ca teew yàlla na nekk fajo aajo biir ak biti ci daraja yonent bi alayhi salaamullah bu ko defee naa damay bàyyi ki nga xam ni mooy jàmbaar ji moom boo ko gisee bu laajtee fan la jëm bu laajte lan lay doxi doxul ci lenn lu dul mission yonent bi alayhi salaamullah boo ko gisee muy dox mu ngi yor ay bantam fan la jëm bàkk yonent bi bàkk yàlla wax ka ne Seydina Muhammad wax ka yàlla bu ko defee kooku mooy alxaaji Sëriñ kone muy sama waji bu ko defé mom lañuy bàyyi inshallah taala mu dugg ci biir programme bi ñu waajal le 25 bismillah sëriñ bu ko defé ñu bàyyi kàddu gi. ganna ko ñu sant yàlla ci cont bi sallallahu alayhi wasallam ci ndigalu khalifa général day di Cheikh al Bekkaay ibnu Cheikh al Bekkaay mi khalifatu am li tarixatul xaadiriya di ñaan yàlla guddal fanam ak mbolam mi rakam waye ci ndigalu Cheikh bu xalif nga xamne moy suñu bundu ci Cheikh Abou mohammed fa tabarkallaahu ku dégg wootu bi di nga xamne ahli kunti woote na waa kër Seydina Muhammad woote na ñun ñoo woote bis bu ñu delloo njukkal yontu bi sallallahu alayhi sallam lépp ñu ngi ko teg ci waa kër yontu bi sallallahu alayhi sallam di ci woo Sassi Dlamine Thiam mi nga xam ne mooy représentant xalif bi fii ci Ndakaaru ak njabootam gépp waaye nag di jiital ci mbir mi nag njabootu Cheikh Sidi Koné ki nga xam ne mooy xalifaam tey di vie mbaaw fa tabarakallah ak ñoom soxna jaar ñu gën ko xam ci Ndey Koné ak mboolem doomu Sidi Koné yi ak ñi nga xam ne mooy famille Njóobeen suma yaay Yaamu Diop fa laaw ak ñi nga xam ne ñoo nekk gañaa suma nijaay Maxtaar Diop fa laaw ak ñi nga xam ne ñoo nekk mbulem di suñu nijaay xam Xamdi Kunta fa tabarakallaahu bis bi nag dafa am nu mu doxee nag lépp ngir da yonent bi sallallaahu alayhi dafa am kuñ ko jagle jii muy ki nga xam ne mooy soxna laal Lalla Kunta di kenn ci sët ci Cheikh Sidi Lamine di nuyu xalifaam di Cheikh Sidi Maxtaar fa tabarakallaahu mooy borom mooy borom 44 ans amul benn fët fa tabarakala du ñaan yàlla di yokk leeram ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis bi nag mi ngi noonu muy le 25 incha allah ci kër Mbay Fall ci arrondissement ci ngi ci woo lépp képp koo xam ne jullit nga la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon naan afdalu ma ana kuntu nabi min sa gémmi rek ñu ngi lay woo ci jotaay boobu nag di ñaan yàlla ñu ñu ceeg jàmm ñu ngi ci woo waa kër Mbay Fall di ci woo waa Cité ki nga xam ne mooy caatu cheikh bu xalifa di Serigne Mouhamad Kunta di kenn ci man fa laaw di ci woo suma frère suma xarit njaay Sow ñu bokk dëkk ca Kër Mbay Fall Mamadou Ndiaye ñëpp ay dëkkandoo lañ Kër Mbay Fall di ci woo waa Ndakaaru di ci woo sama famille nijaay ñi nga xam ne ñoo féete parcelle di soxna Ami Diop fa tabarkala ñu ngi nga yaakaar keneen ku du Kunta te naan ashhadu an la ilaha illa wahdahu ñu ngi woo ci jotaay bi muy le 25 incha allah ci kàttanu yàlla ajjuma bi nag muy le 24 am na kaamil bu fa war a am incha allah ci kàttanu yàlla ci ngoon samedi inshallah buñu xeye warna am kamil alxuraan encore inshallah ci kàttan yàlla di ñaan yàlla yóbbu ci ceeg jàmm ci kàttan tay dafa ñu ndam ci liñuy bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh a'udhu billahi minash seytaani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa umma islamique ñi ngi leen nuyu di leen ziyara di leen wo ci turu nu Nouréyni Cheikh sidelamine Bou kunta di leen woo ci bis bi nga xamante ni Serigne Koné moo ko fas yéenee jagleel Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mu koy defee ca Kër Mbaye Fall le 25 janvier 2020 ñu ngi ci woo nag képp kuy wax achadana la ilaha illallah achadana Muhammad rasulullah bis baa ngi noonu ñun nag ñu leen ci woo waa kër Noureyni Cheikh Sidi Lamine bu di waa kër Maam bu Kunta ca Ndiassane ñu ngi leen di woo bis bi ca Kër Mbaye Fall kon mbokk yi woote baa ngi noonu képp koo xamante ni jullit nga rek ñi ngi lay wo ci bis boobu alaykum wa rahmatullah mbokk yi mu ngi nonu tabarakallah sa suné ne rek lay doon insha allah taala euh ñu jaajëfal Serigne Koné bu baaxa baax ci kàddu yi nga xamni wacce nako fi diko ñaanal yàlla yàlla yàlla gëna dëgeural taxawayam ci daraja yonent bi alayhi salaamullah ki ñuy bëgg a jox tabarakallahu moom موي فينال بي موي سخنا لالا تبارك الله سخنا لالا bintu بنت سيرين بابكر مو شيخ الخليفه مو شيخ سيدي لامين mu cheikh bu kunta borom njaasaan euh, ñu koy ñaanal yàlla moom mi nga xam ni mooy marin bis bi moom la ñu ko marraine di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla gën a dëgëral taxawaayam moom it euh, di ñaan yàlla yàlla nañu ko fekke te tal ko ñun ñëpp bu boobaa incha allah ñuy ñaan képp koo xam ni yaa ngi seetaan vidéo bi nga def délégation bul xaar ku woo ndax lii boo ko seetaanee mooy sa invitation euh, bu ko defee soxna Lalla Kunta moomu la bàyyi ak kaddu gi incha allahu bënnam ak yéene gi mu am ci bis boobu la le 25 janvier ñuy ñaan soxna laal la ñu bàyyi la kàddu gi. bismillaahi rahmaani rahiim auzu billaahi mina maa ngi woo mbokki jullit yëpp di si jiital suñu xalifa Cheikh al Bekaay ibnu Cheikh al Bekaay ibnu Cheikh Abu Mohamed di ci teg suñu xalifa xalifa Cheikh Sid Lamine Kunta di suñu maam Sid Maxtaar Kine ñu ko ci nuyu bu baax di ko ziyaar di wo wa senegal yep di wo wa aduna yep di wo julit yep di wo sama mbokku julit yep di wo ñi bokal Cheikh bu na may kunta yep di wo njabotu Cheikh bu mohammed di wo tamit sama mbokku bop yi wa ke Cheikh Sid Lamine bou ma ngi len ci wo ci bis bi di ci wo tamit wa Guyette Chérif di ci wo Chérif sid mohammed Aïdara ak mbokam yep wa Guyette Chérif di woo tamit waa Ndeer Njaasaan ndànk woo naa ñëpp si bisu bis bi ñu dëlmal muy le vingt cinq euh, janvier bis boobu nag man lañ ko marinel ma ci woo ñëpp képp koo xam ne nekk nga Sénégal rek di julli rek maa ngi la ciy woo di ci woo ñëpp bis baa noonu la vingt cinq lay doon incha allah si kër Mbay Fall bu ko kenn tàdde ku ko dégg rek xamal ne li mooy sa invitation salaamaaleykum wa rahmatullah waaw kay mbokk yi mu ngi noonu euh, ñuy jaajëfal bu baax soxna Lalla Kunta bintu Serigne kër ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di leen wax comme ni mu ko waxee rek incha allah noonu lay demee ñu ngi ci woo mboolem jullit képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn comme ni ko soxna Lalla waxee képp koo xam ni seetaan nga vidéo bi loolu mooy sa invitation ñun amuñu ku dul yonent bi amuñu lu dul waa kër yonent bi bu ko defee kii ñuy bëgg a jox muy borom kër ci soxna Lalla Kunta Fouta bintu Serigne Babacar euh, ñu gën koo xam euh, ci euh, Chérif Khouya Aydara tabaarakallah moom la ñuy jox kàddu gi incha allahu taala mu tëjal ñu jotaay bi wax kàddu yi nga xam ni tamit moom it mu ngi ci dëndam bu ko defee incha allah Chérif Mouhamad ñu bàyyi laa kàddu gi bismillah. macha allah alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah. mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi yëkkati kàddu nuyoo muy baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di wax alhamdulilah rabbil alamin ci kàddu yi nga xamante ne bii nii umma islamique bi yépp ñoo ko bokk muy kalimatu kennal yàlla di la ilaha illallah bi fi jib waaye di kàddu kennal sangu-sang yi muy muhammad rasulullah ci ku dégg kàddu yooyu xam ni waa kër ahli bayt rasul xewle nañ waa kër ahli beyt woote nañ kenn ci njabootu waa kër ahli beyt di jàmbaar ci kër gi muy sëriñ kone toog ci kër Mbay Fall di fa def daawatul islaamiya suñu waxee daawatul islaamiya mooy di fa bay ci tool bi nga xamante ne bii ni tey moom lañu suñu maam yu tedd ja bàyyil muy sang sang yi waaye tool boobu la sunu maam yi baax yi di bay ba ci sunu baay yi ba ci tey ñi nga xamante ne bi ni tey ñoom ñooy taalibe yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew eh, sëriñ ko ne nekk kenn ci taalibe yi toog ci kër Mbay Fall di bay ci tool bi nga xamante ne bi ni tey mooy tariqatul xaadriya waaye di bay ci tool bi nga xamante ne bi ni tey umma islamique bi yépp ñoo ko bokk ndax tool bi benn tool la la yonent bi alayhi salaatu wax ne dinaa leen bàyyil ñaar su ngeen ci sukkandikoo du ngeen sànk du ngeen réer muy alquran ak sunna sëriñ ko na ci tool boobu la toog di bay ci kër mbay faal loolu moo waral tey mu am bis boo xamante ne bii ni umma islamique bi yépp ñoo ko bokk ñu fas yéene ko dëgmal incha allah rabbi samedi le 25 janvier bis boobu nag comme ni mu ko waxee commencé ko ci xalifa bi teg ci bopp njaboot gi muy Cheikh Al Bekkay ibnu Cheikh Al Bekkay ابن الشيخ ابو محمد ابن الشيخ بنام كنت من خليفة الأمن تايفة القادرية موم لا نيو جيتال تي ووتي بوبو دي تي توفتال كيغا خامتيني بي تاي موي سونو خليفة تي شرفاء غي ني بوك موي نجابوتو سونو مام شيخ قادي بونا تي كي يالا تك تي بوك نجابوت دي دي شريف بكاي القران waaye naka noonu ñu di ci toftal ki nga xamante ne bii mooy Serigne Mohamed Mahfous tooge ca Ndànk di ci toftal sëriñ Bou Kounta tooge ca Sanc Buuna naka noonu ki nga xamante ne bii tey moom mooy Mouhamadul Muslim Kounta tooge ca Ndernaar ca tey ci ëtt bi ñu bokk muy tey ci keppaaru mag ñi soo tuddee juróomi penc yooyu rek yóbbaale na mbooleem ku bokk ci tariqatul qadriya bokk ci awlaadi Bunaama bokk bis bi. ren mu nekk bis boo xamante ne bii ni mun naa wax ne li mag ñi di wax dafa ala dawme ndax dafa jël kenn ci suñu njaboot mu mari nekk bis bi muy soxna Lalla kër Kunta ci bis boobu tey ñuy jàppale suñu jigéen di jàppale suñu soxna di jàppale suñu xarit ci bisu islam boobu di ci woo suñu mbokki bopp comme ni ko soxna Lalla waxee mooy ñu ñu bokkal tey ahlul kunti bokk ko ak ahlu shurafaawu ñu leen di woo ci bis bu màgg boobu di leen wax ne ah wax dëgg yàlla édition yi jàll yépp neexoon na waaye nag bu ñu sañee nag bu ñu sañoon nag ren moom mooy dàq bis yépp ndax tey cër bi rëy na ci soxna Lalla waaye rëy na ci ñun ñi nga xamante ne bi ne tey ñun ñooy sëriñam waaye rëy na tamit mboolem koo xamante ne bii ni rek tey ñun ñoo bokk ëtt ki nga xamante ne bii ni mooy sunu maam Cheikh Bounama waaye mooy ëttu ki nga xam ne bii ni mooy sunu maam Cheikh Abou Mouhamed Kounta tey macha allah sëriñ sag la ci kër gi tey mënoon na woote leneen mënoon na doxi leneen mais alhamdulilah rabbil alamin ba la yàlla wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha yow muhammad yow yaay jubal waaye man yàlla maay jubal ku ma soob bi sunu borom jubal ko teg ko ci yoonu siraatal mustaqim mu nekk ci kër Mbay Faal di fa yàlla di fa bàkk yàlla di fa bàkk yonente bi alayhi salaatu di ci woo ay sëriñam comme na ma ko waxee ki nga xamante ne bii ni mooy bu xalifa kunta di buntam ci kër gi te ñëpp xam bu xalifa ci màndu waaye ñëpp xam sañ bu xalifa ci jaamu yàlla waaye ñëpp xam sëñ bu xalifa ci dégg nga xaala laahu xaala rasul kon tey jëmm jooju su wootee bés bu mel noonu ñun ak mbooleem ku ñu bokkal dégg ma sunu maam Cheikh Xaari Buuna wala ñu bokk ko rek ak njabootu kunta dinañu waaj bis bi soxna Lalla mi nga xamante ne bi ne nag moom mooy marraine bi mu ngi ci woo mbooleem ku mu bokkal Sas du Lamine comme ni mu ko waxee waaye di ci woo jullit yëpp di ci woo tamit suñu dëkkandoo bopp yi nga xamante ne bi yàlla dogal na tey ñun ñoo dëkk ñu nekk fii tey ci dakaar nekk fii ci Kër Massar bàyyiwuñu ñu nekk ci yeneen secteurs yi ci dakaar ndax ku lim da juum jum suñu waxee Dakar rek bàyyiwuñ kenn bayiwuñ ñi nga xamante ne bi ni tamit ñu ngi biti réew ñu ngi leen ci woo ci bis bi bëgg nañ daal le 25 bii di édition 2020 bi su jàllee ñu xam ni kat wax dëgg yàlla édition bi ala doome na édition bi dàq na mbooleem édition bi fi mu jaar di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yóbbu ñu ci bismillahi rahmaani rahim ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim waaye di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu génn ci alhamdulilah rabbil alamin di ñaan mboolem lu ci sëriñ yittewoo yal na ko suñu borom def ca gëm nañ ni yàlla dina ko def ndax yàlla wax na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa man jaa bil xasanaati fa lahum asharun amsaaliha boo defee benn yiw bu baax man yàlla dinaa la ko fay fukk yiw yu baax yàlla moomu la ñuy ñaan mu yóbbu ñu ci bis bi mbooleem lu ci sëriñ yittewoo wala mbooleem aajo bu ci taalibi yittewoo suñu borom jàppandal ko foj aajo yi zahiran wa baatinan ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin bis bi daal ñu ngi ciy woo mbooleem jullit buy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah bàyyiwuñu benn turuq suñu waxee bàyyiwuñu benn turuq mooy bàyyiwuñu tariqatul qadriya bàyyiwuñu tariqatul muridiya bàyyiwuñu atijaniya bàyyiwuñu kenn fépp fa jullit ne rek ñu ngi lay woo ci bis bi waa Kër Mbaye Fall ñu waaj ñu xam ne nag ah ren moom bis la ci biir bis yi ndax soxna Lalla Babacar moom moo aaye ca mboolem ku ñu bokkal sunu maam Cheikh Khady Bouna ñu ngi waaj bis bi incha allah rabbi fësee ne rek def ba mu baax comme ni ko xale yi di waxee fësee ne rek incha allah rabbi defar délégation yi ay kilifa yu mat ay kilifa danañ ko teewee ñu gunge soxna la ñu egsi ci kër Mbay Fall saafonte ak sunu taalibe waaye saafonte ak suñu soppe waaye saafonte ak suñu xarit sëriñ ko